ak euh, bi Biagui chef service sport euh, Excaf Télécom Samb. waaw euh, maa lay fay bu baax baax Émilie ñu bëggoon la laaj rek par rapport ak xibaar yi ñu jot fan yii nii ci fédération bi ak tubaab bi nga xam ne dafa signé ñaari contrat waaw muy franchement ab cacophonie boo xamante ne confusion bu extraordinaire man boo xamante ne man décelé naa ko parce que tout simplement mënuma comprendre. Euh, que ñu ngi naan Régie Bogart euh, dafa signé euh, am na contrat au Sénégal parce que dafa signé woon avenant jusqu'en 2021 mi Aliou Cissé di signé avenant en même temps alors que kooku ñu ne kooku dem na jóge na fii dem na Amiens ci beneen club pour def ko dafa mel ni nga jël Aliou Cissé nga yóbbu ko muy muy entraîner benn benn benn benn club alors que c'est des entraîneurs de l'équipe nationale A alors mais lu ci gën a doy waar mooy le directeur technique moom nee na yëgu ko Euh, maître Augustin Senghor président de la fédération neena kooku mënul signer beneen contrat puisque il est sous contrat avec la fédération donc loolu mu nekk cacophonie boo xamante ne te Mayacine Mar mooy directeur technique national moom mooy patron wu euh, Bogar euh, mooy patron Aliou Cissé Léopold Augustin Senghor moom mooy patron Mayacine Mar en tant que président de la fédération donc ñaari kon ñaari kii yooyu bu amee dafay firndeel ne y a une grosse. Euh, cacophonie au niveau, en tout cas, de ce dossier euh, de, de, de l'entraîneur adjoint, entraîneur de, chargé de qui aurait le mantal au niveau de l'équipe nationale du Sénégal. Et, et, dans tout ça, on n'a pas entendu euh, Aliou Mais en dehors de tout ça, c'est que man, j'ai toujours dit que au moment où euh, Aliou Cissé mu nekk entraîneur national, pour man euh, beneen entraîneur waru fa nekk tubaab. fekkente logique bi la ñuy topp. man di officiellement Bogaar lan lay. bon offi officiellement ou officieusement Bogaar mooy entraîneur man euh, mental la ah donc loolu loolu la mais ci ci jëfin gi lu ñu gis mooy entraîneur adjoint la. parce que Aliou Cissé à chaque fois dañuy gis ne moom moom mooy jóg di yóbbu changement moom mooy dem ci Aliou naan ko defal changement wala naan ko li en tout cas moom mooy mimré ci noppam comme ni ñu ko gisee ci yeneen yeneen kii yi moom mooy nekk nekk ci nopp Aliou Aliou surtout bi Omar Daf de demee ba nëgë ni daanaka euh, dañuy gis ne rek ñoom ñaar la donc man dama jàpp ne c'est un entraîneur adjoint c'est l'entraîneur adjoint de Aliou Cissé amul chargé de kii wala quoi que euh, ñoom ñeneen ñi dañoo am ay mission foofu Lamine Diatta jenne chargé des relations avec euh, avec les joueurs ah, donc loolu la El Hadj Diouf ñu ne léegi euh, chargé de de euh, en relation la moom tamit au niveau donc ce ne c'est pas des adjoints l'adjoint aujourd'hui moom la et j'ai toujours di que man je si suis pas d'accord que tey Aliou Cissé mi nga xamante ne musul entraîner équipe fii ci Sénégal musul yore club au Sénégal musul yore club à l'étranger que ñu jox ko équipe nationale du Sénégal ñu dem jël konoon koo xamante ne il n'a pas assez d'expérience ci wàllu coaching parce que 59 ans la am euh, c'est pas parce que c'est l'âge non mais tey xamul euh, tey euh, le le football sénégalais parce que Aliou Cissé moom ci boppam il a été il a été joueur de l'équipe nationale du Sénégal mais au plan local réalité yi xamu ko donc da ngay ànd ak koo xamante ne xëy na kii xam na football Sénégal ah à l'époque je pensais à celui qui a été son mentor mu def ko li mu doon tey muy euh, Karim ndem si yàlla Karim Séga Diouf j'avais pensé à celui-là j'avais pensé à quelqu'un comme Lamine Dieng euh, comme Salaman Ba comme Serigne Saliou Dia j'avais pensé à Cheikh Jalla que ñu ñëw ñu secondé ko ñu épaulé ko euh, vraiment ba mu ba mu soree bi may wax loolu j'avais pas pensé à Oumar Daf dañu woo après bi ñuy dem coupe du monde ñu woo Omar Daf ñu ne Omar Daf léegi yaay adjoint adjoint Aliou Aliou Cissé mais Omar Daf comme Aliou Cissé ñoom ñëpp xamuñu réalité football Sénégal donc tey man dama yaakaar ne Euh, au-delà de de de de de cette affaire de de de Bogaar pour man euh, il est temps que ñu revoir encore une fois le staff de l'équipe nationale du Sénégal parce que man franchement moi ça me fait rire on ne peut pas me dire qu'aujourd'hui que dans cette équipe il y avait un préparateur mental. c'est à se poser la question que les Sénégalais même ñoom comprendre mais loolu mais ñu bëri comprendre ko parce que tey Sénégal ci li ñu ko def rek mental la. ñun compétition yi fu ñu dóoree mental la. mental la fu ñu dóoree ci compétition bu ñu dem compétition bu ñu dem da ngay xool ni boo gisee ñu ñàkk mental suñu mental la alors que ñun Sénégal dañu ne fulla ak fayda loolu mooy euh, mooy ñaax euh, kon sénégalais pour ñu am ful pour ñu pour ñu. pour ñu ñu vraiment ñu ñu def lu lu am solo maa ngi rappelé wu ci temps kan bi que bi ma jëlee El Hadj Malick Sy Souris mu ne kan bi ku am mental moo koy gagné te boo fàttali ko ci kan boobu Tunisie ñoom seen préparateur mental bi dañ ko mujj dàq en pleine compétition parce que tout simplement dañ jàpp ne rôle bu muy joué foofu le problème mental joué ko loolu moo tax ñu dàq ko ndekete Sénégal on a un préparateur mental et que Sénégal échoue sur le plan mental parce que contre l'Algérie mental la contre l'Algérie encore en finale mental yu bëri match yu bëri yoo xamante ne Euh, Régis mun a dem définitivement ñu wut keneen koo xamante ne moo koy remplacer sur le banc du Sénégal. mais dans tout ça aussi où est la euh, responsabilité de la fédération ñoom ñi dem ba sàggan ñuy signé ñaari contrat te ñu ku nekk di génn naan yëgoo. non non du question signé ñaari contrat sax mais c' est le fait que déjà que Mayacine Mar directeur technique ne man yëguma dem na yow fédération yëg nga ne dem nga mais yaa ngi wax ne kooku. mënu su signé beneen contrat ou ou bien alors yow bi muy dem yëgoo ko mais da nga ko bëgg a ne foofu boo demee tamit mënoo fa signé contrat parce que am nga ak ñun contrat mën na nekk loolu ah mais bu ñu déggee euh, Augustin li muy wax mooy que ni euh, ñoom même bu ñu ko yëgee tàgguwu leen donc loolu dafa di loo xamante ne véritablement euh, je pense que au même niveau au niveau de la fédération war nañ ko xoolaat bu baax a baax a baax ni ñuy fonctionner c'est-à-dire même de la structure parce que on vient d'apprendre que ne le président de la fédération président commission la ñu gis euh, aussi euh, l'ancien vice-président euh, pas l'ancien vice-président sax mais le vice-président CRC tamit dafa yoroon commission loolu yéeme. waaw man man daf ma franchement man daf ma daf ma daf ma def kaa je pense que boo nekkee président de fédération déjà am nga la doy waaye yore tamit leneen loo xamante dañ ko toftal ci nga nekk président muy commission marketing. yow léegi yaa yore tout ce qui est marketing en tant que président de la fédération. li ñuy jaaxal ñun gis sponsor équipe nationale. waaw loolu la maay may ñëw si loolu. yow vice président Sayer yow vice président nga léegi yaa yore communication yow troisième vice président Abdoulaye Sow léegi yaa yore commission juridique pour man euh, je pense que aujourd'hui du question de compétence moo manqué Sénégal les gens ont de la compétence ma comprendre que ñi jël ces postes là ñi dénk ko ñoo xamante ne ñoom déjà c'est des vice présidents. et aujourd'hui te Sayer Seck moom moo yore woon commission marketing boobule mais avant Sayer Seck y avait euh, y avait Sayer Seck l'autre là euh, Gaston Mbengue ainsi de suite donc pourquoi ñi bëgg ko def nii c'est parce que tout simplement aussi on a constaté que et c'est malheureux que Sénégal premier en Afrique depuis plus de quatre ans Sénégal vice champion d'Afrique Sénégal euh, qualifié au championnat du monde parmi les cinq au monde le les cinq d'Afrique nga bokk ci cinq qualifiés yow Sénégal mënoo am sponsor au niveau de la fédération mais c'est parce qu'il y quelque chose qui ne va pas loolu war nañ xool lu tax parce que loolu équipe bu ko def yow sponsor yi dañoo war a daw ñëw ci yow mais dañu gis ne kenn dawul ñëw ci ci fédération ci ci football Sénégal kenn dawul ñëw da di wuti boo leen wutee doo am tey Sénégal war na toll foo xamante ne dañuy am sponsor ba rejeté mais malheureusement c'est pas le cas en 2002 gis nañ ko fii nan mooy bloc simplement il y avait une structure qui était de ça da ngeen di wut koo xamante ne wala ñoo xamante ne seen xam-xam màcc na ci wàllu woowule ñu dénk leen ko ñu liggéey ci. waaye bu fekkente ne yéen seen i biir yenee koy jàppante euh, kumba jàppal dem ba jàppal saara demal euh, ainsi de suite ça veut dire que tout simplement du dem parce que ki nga xamante ne dafa bëgg dugal ci ay milliards parce que sponsoré équipe nationale du Sénégal c' est pas un truc de lu luuma luuma Ndoga Babacar wala luuma Sinthiou Malem c' est une affaire de gros sous c' est des milliards la ñuy génne sponsor bu fa ñëw da ngay génne ay milliards dem bi ñuy def bi ñu nekkee Coupe d' Afrique ñaati ñaati société ñoo fi génnul def effigie bu Sénégal équipe nationale bu Sénégal pour jaay produit am mais ñooñu bu ñu gis bu ñu defee loolu c'est parce que tout simplement dañoo gis benn vide ñu buruxlu ci kenn ku nekk buruxlu ci léegi bi ñu ñëwaatee la président la fédération ne léegi ñun dañuy porter plainte ñi nga xamante ne dañuy utiliser image bu bu Sénégal mais bu fekkee dara protégé ko mais ils sont obligés utiliser image bi ñooñu boo leen demoon ci ñoom ci ñoom ci ay lu leer loo xamante ne vraiment lii mais ñoom dañuy ñëw participer ci ci kii bi les grandes entreprises yi nga xamante jël nañ euh, ima image bu Sénégal associé ko pour seen produit donc defe naa daal euh, jot na vraiment ñu ñu gën ko xalaat ñu gën a ñu gën a ñu gën a taxaw ñu xam ne l'équipe nationale du Sénégal est vice champion du du d'Afrique équipe nationale du Sénégal dem na championnat du monde aujourd'hui sunu petite catégorie U20 euh, yi ñu ngi jóge ci compétition gagné sunu daam yi jóge ci compétition gagné donc dire tout simplement que sur le plan euh, sportif il y mais ak yooyu nag foog nga valoriser ko boo ko valoriser wul doo dem parce que après benn moment bu daggee rek c'est fini ah da ngay da ngay da ngay da ngay da donc yooyu danga koy valoriser dès maintenant nga valoriser ko mu nekk loo xamante ne vraiment pour li koy li koy dindi du gaaw donc man vraiment loolu maa ngi woo les les les les de la fédération.